l'information à sa juste ci wolof moo wax lu gàtt rek nii dañuy doore suñu waxtaan ci gërëm waa collectif ñoo lànk euh, rawatina seen groupe de contact yi nga xam ne ñëwoon nañu ziar si tey euh, waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moo mooy seen moo lal seen seen seen combat bi ñuy xeex. te li ci gën a fës di courant bi waaye jàpp naa ni mun na weesu courant bi sax ndax réew mi lépp a yokku te dama ko waxoon ci njëlbeen yàgg na ne ah dinañu seetaan nag sàggan ba fal Macky Sall waaye juróomi at yi di ñëw dina métti trop ci Sénégalais yi moom mu dellu si taxaw keroog ne 2020 va tànge ci olof daal mooy 2020 dina tar kon ñu xam ni courant bi. lenn lu ndaw rek la woon ci mbir mi waaye yokk bi commencé na bu yàgg ci yeneen denrée yoo xam ne peut-être euh, bàyyiwuñu ci woon xel dina gën a dina gën a continuer di di yokku kon su amee ay sénégal yoo xam ne mënoon nañu toog ni ñëpp parce que ñii ma fi gis ñëpp nag wax dëgg yàlla suñu yokkee dina métti ci ñoom waaye am nañu lu ñu fayee ndax ku nekk yaa ngi jàpp ci li nga jàpp te am nga sa sutura waaye suñu ànd ak loolu yëpp ñu bàyyee seen lépp jël seen alal jël seen temps ndax heure bi heure liggéey la ñu jël seen temps jël seen alal bàyyi seen yitte yépp di jël ay risques ba lu ne mun leen ci fekk ñu leen di gazé euh, naam sax du ñoom rek ndax defe naa bële passé moom journaliste jël nañ seen wàll di leen duma di leen tugal kaso yooyu yëpp ñu ko ciy dund jàpp naa ni bëgg réew mi moo tax ñu koy def kon loolu mënuñu lu dul di leen ci jaajëfal di leen Euh, encouragé parce que it soo nekkee ci yu mel nii te léeg mu mel ni lu bëri ci askan wi dañ koo yëgalul seen yaram ndax boo wootee léeg-léeg boo moytuwul euh, ñi fay ñëw lu bëri ci loo xam ne ñëpp la lor ndax courant bu yokkoo yokkuwul pour professeur Malick Ndiaye dong wala pour Zumaro dong wala pour Guèye dong waaye defe naa Sénégal yëpp a ko yëg léeg su demee noonu nag mun nga dem ba xaw a am loo yëg. mu andi découragement waaye combat bu noble la mooy euh, jaamu yàlla la taxawal askan wi jaamu yàlla la te ñoom ci loolu lañu nekk kon ñu ngi leen di gën a encouragé di leen fédérer it suñu participation ci lépp lu ñuy def ndax dama wax léegi nii Pastef euh, en tant que parti politique ñun bu ñuy door sax dañ ne woon ñun nous sommes un parti politique citoyen mooy suñu xeex li ci gën a fës mooy lu ñuy def ba gindi askan wi yee leen di leen jox la bonne information parce que bëri na ci askan wi ñoo xam ne ñi ngi jàmbat métti ñi ngi jàmbat méttitu dund bi ñi ngi jàmbat jafe-jafe yi mais amuñu instruments yi wala amuñu information yi pour xam li tax mbir mi demee noonu donc ñun bi ñuy door suñu premier objectif mooy fexe woon ba li ñuy wax éveil des consciences yee citoyens yi di leen wax lan la nguur gi di doxee naka lañ ko yoree lan moo ci baax lan moo ci baaxul te bëri na euh, lu ñu niroo ci fànn woowu ak ak mouvement citoyen moo tax dañ demoon ba nit ñi dañ naan Ousmane Sonko moom lanceur d'alerte la moom dénoncé rek lay def fekk du loolu kon su dee loolu mooy suñu suñu li li fonde suñu parti question yu mel nii mënuñoo mënuñu cee ñàkk Euh, participer moo tax bi ñu commencé ba léegi collectif yi ñu mës a def yëpp non au franc CFA euh, euh, nu mu tudd collectif non aux accords de partenariat économique collectif pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers du Sénégal aar lu ñu bokk ak ba bii nga xam ne mooy ñoo lànk musuñu see génne suñu loxo te li koy firndeel rek mooy saa su manifestation amee yéen ñii di journaliste yi fa teew gis ngeen ni euh, membre Pastef yi dañ fay bëri trop dañuy mobiliser lu bëri ñaareel bi mooy fu ñu jàpp ay nit fu ñu ne jàpp nañu fukki nit boo moytul juróom yi waa Pastef lañu directement wala indirectement kon lii euh, euh, formalité rek la woon pour li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñu waxtaan ci ba gën a diisoo gën a dëppale ci métode ak ci ni ñu war a doxalee mais ñoom xam nañu déjà que Pastef moom mosul génnee loxoom ci mbir mi waaye bis ni ki tey bu soobee yàlla dinañu lépp lu ñu doon def dinañ ko ful dinañ ci gën a jàpp dinañu mobiliser suñuy nit ndaw ñi jigéen ñi mag ñi dinañu lancer ay appel ba nga xam ne combat bi nga xam ne sénégal yëpp la concerné au-delà de Pastef képp kuy suñu sympathisant rek wala képp kuy citoyen boo xam ne même soo àndul ak ñun Sénégal ñor na la war nga mën a jàpp ni lii du combat wu Masamba wala ma dem ba ñu mobiliser wu ba nguuru Macky Sall dellu gannaaw euh, euh, yërëm askan wi tuuti ba gi coono gi mu bëgg a teg coono gi euh, askan wi te muy yokk facture courant yi.